waaye man damay mbokk mu ñëw ci bokkam am ci xol bu set lool ndax lii defe naa ne ñu ngi ci cinquième édition bi maa ngi koy door a fekke te ma bokk ci ñi nga xam ne ñoo fi war a jiitu bu ñuy jël seize ñu jël ko ñii lal basal ñu lal ko ñii indi ndox ñu indi ko noonu laa fi demee moo sant bu baax sëriñ Souhaïbou mi ciy sama bunt ak sëriñ Ahmadu di siyaaree fi fekk ñëpp mbokki jullit yi mbokki deret yi jigéen góor ñi ak jigéen ñi waaye fii moom ñi fi daje mën nañoo am lu ñu jàngat ci liggéeyu mag ñi seen liggéey bu yàlla barkeel nañ xool sëriñ ibnu rahimahullahu taala mi doon ànd ak sëñ Touba am weer wu ko sëriñ Touba si xaloon mu nàmp ci ba fer nañu xool sëriñ ibnu moomu nga xam ne boppu jataay bi ak digg bi ak munti lépp sëñ Ibnu la ndax bu ma dégloo sëriñ Souhaïbou bu li wax léegi bi muy waxtaan ak sëriñ Souhaïbou bu Ibnu Xaadim Rasul wax ko hadaf bi tax maanaam li waral muy def lu mel nii nañ déglu la ko sëriñ Souhaïbou bu wax muy wax ju jóge ci doon sëñ Tuubaa waaye bi ko sëriñ Sonia bu waxee li mu xalaat nañ déglu li la ca sëñeem mu teg mooy man de li tax ma di ko def mooy àddina mën naa dem ba yàq àgg ci yàqu fu bokk yi tasaaroo su boobaa dajale leen dana jafe li taxit ma di ko def mooy fii ma dëkk ci Kajoor dafa dummóoyu te boo fi sampee dara loola war naa dem ba ñépp teg ci bët ndax ku ca war a def dara def ko ca waaye li tax ma di ko def itam mooy sa bàyyi dama nekkoon ci toolub lislaam sa bàyyi feeñ ci toolub lislaam def ci lislaam lu kenn mën lu kenn musta def kenn amul kàttanu def ko ba am ci barkeb lislaam lool ña ca nekkoon amuñu ko ma ne dana sa bàyyi ba wax jii fekk ma ci mooy Sëñ Tuubaa dafa wax ne amarani rabbi bi bi an usarriha bi annani maladun wa marzaw wa himan fa man arada al xayra fi kiltayi daarayni falyalmu bi suñ boroom dafa ma digal ma wax ca kaw ne man Sëñ Tuubaa ab làquwaay la ab rawukaay la ab mosukaay la ku bëgg am yiwu àddina ak alaaxira ñëwal mosu asalaamaaleykum wa rahmatullah Ahmadou Amar jiitu comité d'organisation màggal annuel bu jéemul euh, jotaay bi ñuy woote tey nag euh, am na bi mooy cinquième édition bi ñu koy def def ko jotaayu xam-xam maanaam ak mu jot ngir waajal màggalu jéemul Euh, ñu def conférence préparatoire bi di ko defee fii ci hôtel de ville de Dakar ren ñu jël ci thème bu am solo doo waxtaan ci xam-xam solo sim am ci diine l'islam euh, loolu yëpp nag ñu dugal ko ci programme mu màggal gi nga xam ne mi ngi am le 8 février incha allah du 70e édition bi ci jéemul su ñëwee jéemul nag xel yëpp dafay dem ci naaru ansaar yi euh, mu bokk ci. benn dëkk yi mu bokk ci dëkk yi nga xam ne mooy euh, cosaan yu ñuy sant Amar kenn ci surtout sëñ euh, euh, Mouhamad al Amin boobu ñu koy wax Cheikh Ibn al Arabi dooroon bis bi ci jéemul ci 1949. 1949 kon ren nekk 70e édition ñuy màggal màggalu jéemul mu ne ñeent moo taxoon muy woote lii ba ci jiitu mooy ñaanal suñu waajur yi jiitu suñu maam yi loolu mooy ponk bu njëkk ba ñaareel ba mu ne mooy lu boolewaat mbokk yi ndax bi ñuy ñëw waa ansaar yi dañu ñëw boo gisee baatu naaru kayoor euh, wolof danaan euh, noor danaan kajoor sud mu ne saalum est mu ne penku loolu naar yi comme ñoom euh, ñi ngi jógee ci noor bi biñ ñëwee agsi foofu ñu leen di wax naaru Kajoor parce que foofu la ñu installé woon euh, sëñ mi wax ne bokk na li taxul muy woote bis bi comme tolloon na ay jamono ansaar yooyu seen sët yi tasaaroo ci réew mi mu nekkoon comme bis boobu bu dellusee ñun ñëpp ñu daje euh, saafonte ñi xamuloon xamante ñu am nekkoon ci ay jafe-jafe yàlla ñu ci yàlla musal ñu dimbali leen loolu bokkoon na ñetteel ba nee na lu suqali gox boobu ku ne xam na ne euh, naar euh, ku bëgg suufam la ku fonk suufam la mu ne kon suñuy daje foofu dinay tax lay tax gox bi yittewoo ko ku ne xam ne réalisation yi nga xam ne sëñ bi def na ko foofu muy ndox mi muy yoon wi muy téléphone yooyu yëpp lu mel nii moo tax mu mën a am ñeenteel ba nag mu ne moom bi sëriñ bi ñëwee gën jiitu man mu ne kon moom day dem sëriñ Touba duyal ko mu dem liggéeyal Serigne Touba ca ku nekk Serigne xam ci ñun li lu Serigne Touba wax ci ku ko liggéeyal mu ne kon bis boobu tamit bisu sant Serigne Touba la kon ñeenti yooyu moo taxoon Serigne nu woote bis bi may profité ci occasion bi kon di jottali euh, euh, ndigal li jóge jóge Serigne Khadim ñëw ci ñun muy sëñ Khadim nee na bis bi moom jëwriñ la ci jëwriñ gi mu ci doon nag kon dafay liggéeyal askanu ansaar yëpp. wante nag woote bi dafay tàmbalee ci njabootu xaadim rasul ndax bu ne sëñ Ibnu rek ñëpp dañuy dem seen xel day dem ci sëñ Tuuba nee na bu woowee njabootu xaadim rasul nag mooy woo na umma islamique bi yëpp woo ñun bokkal réew mi yëpp woo képp koo xamante ni soppe nga xarit nga walla yow sa jëwriñ ci yoonu sëriñ Tuuba euh, ci kër sëñ Ibnu la bokk loolu moo nekkoon woote bi loolu moo taxoon ñuy daje di sant mbooleem mbokk jullit yi suñu kilifa yi suñu xarit yi bokki taalibe bi ñëpp ñëw ànd ak ñun bis bi waaye te bis bi ni ñu koy waxee ci tàmbali ba rek bisu waajal la xëy na ko gis dimension bi ak fi mu àgg da ngay jàpp ne mooy bis bi waaye déedéet lii waajalu bis bi la euh, jëmmi màggal gi nag ajjuma la 8 février euh, incha allah ci jéemul sëñ bi di fàttali njàngam alxuraan mi ndax ak mu jot ci jamonoy sëñ imnu sëñ ne dafa taamoon barab boo xam nit ku fa dugg sa xel dem ci suñu borom muy armeel ya nga xam ne fa la way làqu yu tëdd kon njàngam alxuraan moom foofu lañ koy daje di ko fa def bis le premier bu bis bi dellisee di le huit doon màggalu jéemal asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh